dal len ak jàmm ñu daldi di àddu wax ci mbirum ki nga xamne modi ndela major djouf lan mo waral nak mu amal lu ni mel lan mo tax muy jël ay xalé di len nak fat si bir kërëm si ay explication moom ndela major djouf limu wax neena nak kané kep ko xamne amé nga dom fa kërëm boy genn dang koy fay sino do yóbbu sa dom mu nekk lu doy war nak mom mi di ndela Madior djuf nga xamne nak nag daal di koy garda vie jamono ji ñuy wax ak yeen dañ leen di dektal ben vidéo ay ay révélation ak ay manam ay jangat ci mbir mu ni mel lan moko koy waral lan motax Senegal Sénégal toll fii nii euh, femme dal yor kërëm difa fat ay lire ay xalé yu ndaw ndaw yu fenn té nak du leen tek ci yoon lii lan moo ko waral lan moo si taxawaayu état. Euh, nekkul ne képp ku jur doom danga ko war a yor ci àdduna loolu ñun suñuy esprit wax dëgg yàlla suñuy xalaat moo erroné xale nit mën naa doon couple sax doon jëkkër papa yaay te ñoo yor xale bi parce que amuñ capacité buñ ko yoree dañoo war a nekk ci société boo xam ne dañoo war a dem jébbal ko ña ko mën a yor buñ ko jébbalee ña ko war a yor ñooñu daal di koy yor ñoom mën nañ faa jaar doon ay autorité parentale ba tey di ko xool di ko toppatoo di xam seen doom lan la ci nekk ba keroog doom jëni màgg wala ba keroog ñoom ñuy am changé seen bii mën a changé ñu mën ko dem jël mais yooyu boo ko doon xool suñ dëkk wax dëgg yàlla boo demul ci centre chrétien yi c'est difficile à moins que nga dem yóbbu ko ci yenn daara yi te yenn daara yooyu noonu yu ci ëpp nekkul ci grande ville maanaam daara yi nga xam ne yu crédible lañ yoo xam ne mën nga faa yóbbu sa xale ñu jàngal la ko toppatoo ko ñu ci bari nekkuñ ci dëkk yi parce que ñenn ñi dañuy bëgg a gis seen doom nekkul ne dañoo abandonné seen doom mais dañoo amul possibilité yor ko nit bu amul possibilité yor doom dafa war a am ay possibilité yoo xam ne dafa am ay garde enfant yoo xam ne dañ ko war di téye loolu nag wax dëgg yàlla boo demee ci réew tubaab yi loolu dafa doon loo xam ne yitte la. xale du fa tuma ranké lu dëkk ba metti metti metti metti metti xale du fa tuma ranké même jigen du fa tuma ranké ak dëkk yi lu ndol ndol ndol ñaar yi mom dinañ fexé ba garantie ko par exemple tay immigration li metti metti metti metti c'est rare ngay dem fekk jigen jo xamné day faran ci bedd pourtant goor yi am pagaay dé lan moko waral mais parce que jigen ni am lum dé dé dé dé di nga am ño xamné ne dinañ la mëna héberger kon xalé noonu la mel ak jigéen tamit noonu la mel kon dafa am yoo xam ne société dañ ko war a garanti mooy le minimum maanaam xale bi parent mënu ko yor ñu récupérer ko am ku ko mën a yor euh, jox ko boo ko waxee ñu ne la ñu yóbbu ko ca daara ja am na daara yu ko mën a yóbbu bien sûr mais ndax ñëpp dañoo mën a yóbbu seen doom daara am na parce que am na ñoo xam ne bu ñu yóbboo seen doom dañuy jàppale ne dañoo sànni seen doom wala duñ ko gisati kon amouru maternel dafa am da ngay gis sa doom. kon li ma bëgg a wax foofu nam doone daara ja ca àll ba noonu la waroon doone ay daara yu mag yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ne lépp social lay doon nga xam ne ku munta yor sa doom mën ko faa mën a yóbbu ñu jàngal la ko yoral la ko loolu ñun ñëpp buñ góor góorgóorlu woon mën nañ ko face aux activités bi on parle de mille personnes mille francs mille francs buñ ko doon def par weer buñ ko defoon parweer weer un million la buñ ko defoon un an douze millions la douze millions mën nañ cee jënd terrain mën nañ cee jënd terrain buñ ci 2000 2000 2000 millions la ci année bi war nañ ci kër ci ay nunu organiser ko yor te luñ kenn ku ne par imagine toi nga 10 groupes il faut ñu comprendre ne yalla dinañu ko laaj parce que yalla xel la waxon ñu jariñoko ça ne veut pas dire que man organiser defumako mais nit ki day mom li da ko wara def jamu yalla moy bâtir une société jamu yalla moy bâtir une société fexé ba perfectionner société loolu moy jamu yalla li la yalla soxla ci ñun yalla li soxla moy société yo xam dañ koy defar kenn ko dafa nga nek ñu fexé ba mbax euh kon li ma bëgg wax rek ñun ñëpp ci am part de responsabilité état moy numéro 1 mais ñun ñëpp ci am ay part de responsabilité euh, bari na wax deug yalla ay milliers de xale yo xamné wala ay junniy junniy xale yo xamné wax deug yàlla seeni parents yor gën len yor ci délinquant rek lañu mujjé parce que yàlla faralul kenn nit mom bu yaro ci mbéd nek ci mbéd def yëfi mbedd ah kon organisation yoy non ay nit def ñukoy yém waaw joxe na exemple bi ci face aux activistes bi luñ mën la 1000 francs par 1000 francs 1 million la buñ ko defoon 1 an 12 millions la. loolu mën nga cee commencé lu bari mën nga cee commencé lu bari lu mën a nekk la c'est pas du fiction du fiction de mën na nekk douze million yooyu boo ko jël ne mën nga am feneen terrain bu baax boo ko defoon deux ans muy vingt quatre million nga tabax ci maanaam crèche bu mag nga xool dépense yan moo ca war a nekk nga commencé kon lii ma wax xam nañ ne ñun mën ne. man dama koy indi rek rapidement ci deux axes benn bi mooy. Euh, am ay xale euh, joxe ko loolu yàgg na ci taarix ba ci sax taarixu islaam parce que arab yi doon nañ ko def yenentu ci boppam bi mu juddoo après euh, ndeyam nàmpalu ko keneen moo ko nàmpal voilà bon seen wax nañ ci ay wax yu fasantikoo yu bari mais yàgg na ci taarix arab yi daan nañ ko def mooy jur doom jox ko keneen pour une durée mo am lu mu jang ci yow wala nga nampal ko am lu sa meew def ci mom après nga jëlaat ko yoy yag na fi benen bi moy il faut aussi reconnaître que ni euh, li ngay wax non yeb amna na mais c'est-à-dire que on n'est pas dans des états sérieux quoi c'est ça le problème parce que quoi qu'il en soit aussi pour da fay am ay normes yo xam ni daf ko wara am Eh, amul lenn loo xam ne nii fii rek ci Afrique normé na marché yi normé wut salle de classe yi normé wut université yi normé wut ministère yi normé wut kër yi niñ ko tabaxee normé wut amul fooy dem ba mu normé mais dafa am yoo xam ni nag au minimum c'est le minimum que ñu jëloon ci ay responsabilité mooy lu mel ni ay foo xam ne ni fala ay xale di nekk ak yu mel noonu warul nekk loo xam ne anarchie la maintenant Ndella Madior Diouf man fu ma d'accord ak yow mooy fi nga ne en fait lim def baax na mooy en fait le mu jël xale yi dajale leen pour yor leen loolu baax na lu mu ci jublu nag loolu beneen question la mais am na ñeneen ñu koy def et ils le font sérieusement Kaolack am na pouponnière bu fa nekk boo xam ne nii li ñu war a def ñu ngi koy def sérieusement xoolal catholique yi seen sant d'accueil yi mais da nga mës a dégg coow am ceeg yooyu et ça veut dire que. moom Ndella Madior dafa nekk dans un pays boo xam ne ni laisser aller moom moo fa nekk mu profitoo ci laisser aller boobu noonu voilà bon dama xaw a kii tuuti rek moo tax mais sa jàngat bi tamit am na solo trop. waaw jërëjëf Mbaye ziar nañ la baax baax non dama ne initiative bi. maanaam le fait que nga am initiative boo xam ne da nga ne da ngaa seetlu ne xale yi ñu ngi taxawal cee doom par exemple tey fii nit ñi dañuy jur doom rey ko ñun ñu koy seetaan di yéemu te pourtant ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité parce que buñ góorgóorlu woon moom laa doon expliqué ci phase OSDAC bi rek buñ taxawoon 1000 francs 1000 francs taxaw décider mën nañoo fexe ba ñun suñ quartier ñu aar ko ba ku am sa doom mais au lieu que nga koy rey nga ñëw andi ko association nangam nga ko yóbbu wala nga làqatu guddi andi ko fa. kon yooyu noonu bu taxawoon tey kon nit ki tey mën naa bañ a rey doomam kon loolu lu man lu mën a jàppandi la parce que ñun ñoo ci gën a góor léegi initiative boobu moo am solo léegi leneen li mooy euh, en matière ay xale yooyu noonu yu ci ëpp ay dóor la fii ci Afrique lan moo ko waral mais parce que loolu système bi moo bon mbay. c'est-à-dire que système bu bon boo ko amee maanaam lépp ni ay nit dañ ciy profité yi gënoon a sacré ci àdduna gënoon a am valeur ci àdduna ay nit dañ ci profité di ci jéem a dund kon loolu kenn nu ko nier mais loolu problème système la loolu euh, yàqul dara ci initiative bi ak defar bi par exemple bu ñëpp doon quatre-vingt-dix-neuf doon ay dóorkat am kenn koo xam ne mi ngi def lu baax yàqu mënu laa yàqal dara parce que léegi euh, la nga xam mom lañu wara organiser rek bu système bi baxé léegi yooyu euh, la nga xam ay tapalé dañ ko ci génne ah parce que problème organisation la dans ce pays mais il faut ñu comprendre yene mbir par exemple tay dama la jox exemple bi gën banal bo nekkoon Italie yor ay nak comme Oustaz Lamé yor ay nagam daal di leen di toppatoowul yoo mbay yow yéen a association xam ne ña toppatoowul seen i nag mais da ngeen di dem buñ amul norme bi day wax né euh, garanti wuñ ko yene yene dem porter leen plainte ñu ñëw topp leen nangu nag ya parce que nag ya dañ koo war a toppatoo dañ leen a war a yor yorin boo xam ne yorin bi rafet la ndegam ci am ay mal lañ koy def waxatuma ak nit c'est que ñun suñu société il faut ñu comprendre ne lépp kale dara doxul fii la tubaab bi toll maanaam fi ñu toll mooy man damay créer association ki toppatoowul ay nagam doon sàmm man dama koy wër di ci def yitte di ci def ay heure ba nga xam ne seeni nag dinañ ko toppatoo parforce force waxut kon ñooñu romb nañ ay romb nañ exemple ay doomu aadama waaw ah, kon loolu noonu moom la a war a doxee.